salaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, mu am nag une information boo xamante ne daf ñu dab léegi léegi léegi léegi mu ñeel mbiri Pape Alé Niang ma buggoon ko partager ak sénégalais mais surtout alerter l'opinion ngeen baal ma nag xam naa bu ñu amee ñu dugg si tuuti rek bu ñu amee lim bu xaw a takk tuuti rek ma dikk ak yéen ci information yi nga xamante ne moom moo xew euh, ñu patienté tuuti rek suñu mbokk yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñooy sénégalais yi ñuy topp bu ñu amee xam liw lim bu xaw a takku rek ñu daal di euh, donner les dernières informations yi nga xamante ne moo ñu dab léegi léegi léegi mu ñeel Pape Alé xanaa ma ma ñaan leen rek mbokk yi gannaaw ba ma leen nuyoo ku ci nekk ci sa tur sa sant ñu àndandoo patiente tuuti rek parce que li ñuy bëgg a yëkkati nii am na solo am solo boo xamante ne dafay ñeel lim bu takku ci yéen euh, ñu dégg ko déglu ko. ma di ñaan aussi bu fekkee da ngeen a dugg nekk ci live bii nga xamante ne su ma yéene mooy ma jox leen ci ay information mu ñeel l'état de santé de Pape Alé Niang ma di ñaan ngeen partager ko s'il vous plaît je vous demande solennellement je l'ai jamais fait mais je vous demande solennellement s'il vous plaît de partager ce live s'il vous plaît c'est très très important c'est important partagez au maximum ce live là bu ñu amee lim bu takku ñu àndandoo Euh, wax dëgg yàlla euh, ma jox leen li nga xamante ne moom moo di information yi parce que l'heure et extrêmement grave l'heure et extrêmement grave l'heure est extrêmement mbokk yi ma leen di ñaan ngeen partager live bi parce que Macky Sall ak ñi mu àndal leur projet qu'ils de liquidation de Pape Alé tey lañ ci gën a sax maa ngi leen di ñaan mbokk yi ngeen partager live bi bu baax a baax parce que nag wax dëgg yàlla réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal moomuñu ko doon nañu ko ci ndey doon nañu ko ci bàyyi ba ku ñu bëgg a rey rey la ku ñu bëgg tëj kaso tëj la kaso waaw mbokk yi ngeen baal ma rek ma ma ma terminer deux trois trucs en attendant s'il vous plaît boo leen duggee partagez leen live bi au maximum possible parce que ce qui est en train de se passer dans ce pays là est devenu insupportable parce que ñoom seen projet bi nga xamante ne dañ koo am pour faat Pape Alé Niang dootul wax ci réew mi tey lañ ci gën a sax waaye nag waxoon naa leen ko démb fii ci waxtaan boo xamante ne dañ ko seqoon ma na leen woon euh, pour ngeen rey ko xëy na lu mën a nekk la waaye bu ngeen koy rey tamit seeni seeni seeni seeni loxo dina taq deret ba àdduna yëpp yëg ko ngeen baal ma rek mbokk yi wax dëgg yàlla ku dugg rek ma ñaan la nga partager live bi mu yaatu parce que j'ai envie de donner des informations par rapport à l'état de santé de Pape Alé ak li nekk di xew ñëpp xam ko ñëpp yëg ko opinion bi xam li xew xam li nga xamante ne moom lañ koy waajal xam li ñu namm ci moom te loolu weesuwul kenn ku dul le ministre de la justice bi nga xamante ne moom moo di Ismaïla Madior Fall le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome ñoo ci ànd di ko def pour bégalee ko Macky Sall ak soxnam mbokk yi dugg leen ngeen partager live bi s'il vous ma leen di ñaan ngeen dugg boo leen duggee ngeen partager live bi s'il vous parce que j'ai envie de donner des informations parce que nag réew mi Macky Sall donn ko ci ndey donn ko ci bàyyi waaw mbokk yi comme lim bi commencé na takku damay dikk rek ci li nga xamante ne moom moo di information bi nga xamante ne am naa yéene baaxee ko sénégalais yi nga xamante ne moo ñu dab léegi léegi fi may wax ak yéen matagul euh, fukki minute ak juróom ak lu teg bi ma raccroché ak ñi ma doon waxal ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoom ñooy topp mbiru Pape Alé moo xam ci wàll bu ñu mën a nekkee nag parce que yéen li ngeen xamul mooy ci seen biir sax moom ñi leen gën a jege ñoo ñuy jox les informations à temps réel te yéen xamu leen ko. ma bugga leen wax benn affaire mbokk yi ngeen xam ko Pape Alé fi mu toll nii guddi yu ñu toll fi may wax yéen dee la gën a jege dund. parce que dañ ko yóbbu woon au niveau euh, de l'hôpital principal ci pavillon spécial depuis biñ ko dooree mandat de dépôt ba léegi ñu ngi ko yóbbu ci pavillon spécial bi mu wéy di xeex ak ñoom di continuer grève de la faim tey ci ngoon léegi lañu ma woo xamal ma ni ma finalement Pape Alé dañ ko jël évacuer ko d'urgence yóbbu ko fi nga xamante ne moom moo di réanimation bu hôpital principal parce que état de santé dem na ba toll ci duggante dund ak dee ñu yóbbu ko fi nga xamante ne moom moo di réanimation et il refuse toujours de s'alimenter il refuse même les soins médicaux yi nga xamante ne dañ ko ko bëgg a parce que moom jàpp ne ne dañ ko jaay doole dañ ko dañ ko dañ ko dañ koy dañuy acharné wu ci moom te teguñu ko fenn foo xamante ne fu fu fu fu jaar yoon la te dafay baax aujourd'hui mbokk yi ngeen xam ne Macky Sall ak nguuroom ak Ismaïla Madior Fall le ministre de la justice en question parce que nag depuis depuis depuis toujours j'ai pas voulu rentrer dans des détails pour personnaliser ce qui est en train de se passer mais dama bëgg sénégalais yi xam ne au moment où je vous parle là Pape Alé Niang mi ngi service réanimation bu hôpital principal nekk ci diggante dund ak dee et ils refusent de s'alimenter ils refusent leurs soins médicaux nee na moom dina continuer xeex ak nguuru Sénégal ci jafe-jafe yi nga xamante ne dañ ko koy teg te tegul ci teguwul ci dëgg teguwul ci yoon dañ ko jaay doole jël ko dugal ko ci kaso yóbbu ko pavillon spécial parce que tout simplement ñoom jàpp nañ ne Pape Alé Niang warul yëkkati kàddu ci jàpp bi nga xamante ne jàpp nañ ko Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi bu fekkee da ngeen am problème ak Ousmane Sonko réglez vos problèmes avec Ousmane Sonko en tant que politicien Pape Alé Niang c'est un journaliste indépendant qui a le droit d'exprimer ses opinions librement dans ce pays mais yéen dans vos schémas vous vous êtes dit que Pape Alé si on le laisse dehors et on on, on met Sonko en prison ça risque d'aggraver la situation parce que il va continuer à parler sur ce dossier d'incarcération d'Ousmane Sonko loolu moo tax ngeen créer un faux dossier qui ne repose sur absolument rien pour le mettre en prison je l'ai dit hier ici à travers mon euh, euh, live bu ma séqoon ak yow nee naa leen le parquet dans son réquisitoire il n'a versé aucun élément de charge contre Pape Alé le procureur de la République en question est bien conscient que ce dossier est d'une vacuité absolue il n'existe absolument rien dans ce dossier sous prétexte que da ngeen ko arrêté pour des raisons d'État quelles sont les raisons d'État qui ont poussé l'État du Sénégal à vouloir coûte que coûte arrêter Pape Alé illégalement et de façon arbitraire pour le mettre en prison dama ne le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ont décidé d'incarcérer Pape Alé Niang de façon arbitraire pour faire plaisir à Macky Sall et à Marème Faye Sall parce que tout simplement ils se sont dit que ni Pape Alé il est un journaliste indépendant bu nekkee ci biti son nekk ci biir mu jël responsabilité am wax li nga xamante ne moom moo nekk ci arrestation bi wax ci xalaatam sensibiliser opinion bi ça peut avoir des conséquences te loolu bi ngeen koy planifier jàpp leen sax Ousmane Sonko pour vous dire que yéen vous pensez que vous êtes intelligent wala war ngeen taxaw ci entre quatre murs wax li nga xamante ne planifier seen ay plan teg seen ay schéma te yëgu ko nee leen yéen fa ngeen di nekk di toog di schéma ñay toog di ak yéen di schéma sax gëmuñu leen parce que xam nañ ne vous êtes dans l'illégalité vous êtes dans l'arbitraire vous êtes en train de faire tout pour le faire taire de de force Et pendant ce temps, vous avez vos journalistes charognards qui sont en train de pavaner les, télé, les, télé, les télévisions et les sites internet pour dire tout et n'importe quoi sur les gens. Et Pape Alignan, c'est un citoyen sénégalais. C'est un, un journaliste libre, indépendant. wuute ak moom xalaat taxul ngeen bëgg jël bakkanam mais je vous ai dit hier ici à travers un live que vous pouvez tout faire mais il va continuer à résister jusqu'à son dernier souffle su fekkee ne bakkanam day rot ci lii bakkanam dina ci rot mais vous allez avoir les mains tachées de sang sénégalais yëpp xam ne yéen a ko rey loolu je le dis et je le répète parce que Pape Alé Niang bokkul ci askan woo xamante ne dañuy dellu ginnaaw dañuy daw wala dañuy sàqi l'arbitraire que vous êtes en train d'imposer au Sénégalais dafa ëpp trop c'est trop vous ne pouvez pas utiliser les juges, utiliser des magistrats, utiliser la police, la gendarmerie, mais pour anéantir des personnes de façon gratuite. Ça ne peut plus continuer dans ce pays. moomu leen réew mi donn leen ko ci ndey donn leen ko ci baay Macky da nga woo da nga laaj sénégalais ñu jox la réew mi jël seen doole jox la nga wëlbatiku jël doole biñ la jox di ko faagaagalee ay doomu aadama ku ànd ak yow xalaat mën na xëy saaga ndey réew mi yépp du mujj fenn ci kawam ku wuute ak yow xalaat lu mu néew néew du am jàmm ci réew mi dama ne réew mi moomoo ko dañ la ko dënk waaye moomuloo ko ba nga jël sa police sa gendarmerie sa justice ak sa ay juge ki magistrat yoo tànnal sa bopp di leen teg ñu lay ñu lay dumaal nit ñi di la di leen dugal kaso de façon illégale ça doit arrêter trop c'est trop trop c'est trop l'arbitraire qui règne dans ce pays et la dictature qui règne dans ce pays doit arrêter ce pays n'appartient pas à Macky Sall ce pays appartient aux Sénégalais aux citoyens sénégalais qui ont le droit de dire ce qu'ils pensent dans ce pays-là Si vous êtes courageux, il faut affronter Ousmane Sonko de façon politique. mais il faut pas que ngeen di laqatu ci ginnaaw justice di laqatu ci ginnaaw ay juge de laqatu ci ay ginnaaw magistrat pour faagaagal ay nit c'est honteux c'est indigne d'un chef d'État ce qui se passe dans ce pays est trop arrêtez arrêtez de jouer avec la liberté des Sénégalais arrêtez de bafouer les les libertés Macky Sall doit arrêter ce qu'il en train de faire trop c'est trop moom loo réew mi dañ la koo dénk tôt ou tard dangay dem nga bëgg ko nga ngay dem nga bañ ko da ngay dem c'est indigne d'utiliser la justice pour anéantir des personnes c'est malhonnête par Alé Niang va lutter jusqu'au bout yéen xam ngeen ko bu baax il va lutter jusqu'au bout mbokk yi dama ne fi may wax ak yéen nii l'information que j'ai reçue tout de suite mooy ne que Pape Alé mi ngi au niveau des services de réanimation de l'hôpital euh, principal de Dakar dina ci génn du ci génn yàlla moo ko xam day wéy di dund day dee yàlla moo ko xam mais nee naa leen bu deewee si c'est l'irréparable ce produit Vous allez avoir sa mort dans vos consciences. En premier lieu, yow le président Macky Sall. Macky Sall da war a gore. Macky Sall da nga war a digne. Macky Sall da nga war a gore honnête. xam ne sénégalais yi ñoo la dénkoon réew mi. wax naa la ko démb fii dama la koy waxaat Pape Alé Niang musul nekk sa noon te du sa noon mais li nga nekk di ko teg ci métit dafa ëpp et sénégalais yi dañ ko war a xam li nga nekk di teg Pape Alé ci mitit dafa ëpp et il est temps que tu arrêtes sa ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ak ki nga xamante ne moo di Antoine Félix Diome di la ministre de l'intérieur dañu la dig na la ils t'ont promis la peau de Pape Alé il faut arrêter il faut arrêter Pape Alé Niang ci réew mi la dëkk juddoo ci réew mi liggéey lu mu liggéey ci réew mi am ay mbokk ci réew mi du étranger arrêtez li ngay def yow ak sa soxna Marème Faye Sall arrêtez ce que fet faites laissez Pape Alé Niang en paix laissez-le tranquille il est temps que vous arrêtez di toroxal ay doomu aadama di toroxal ay góor ci réew mi te tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon làqatu ci ginnaaw ay juge ay magistra di toroxal ay nit ci ay dossiers yu teguwul ci dara vous savez pertinemment que da dem jàpp pap Alé Niang lijjanti leen ko taqal ngeen xool mënu leen ko taqal ngeen dugal ko ci kaso bi de force pour lan la loolu defu leen waxu leen nekk ci liggéeyam wuute ak yéen xalaat ngeen ne ko fii léegi ñu ci réew mi du ngeen du moom du am jàmm ci réew mi mais dans quel pays sommes-nous c'est de la lâcheté c'est indigne un président de la République doit se préoccuper des difficultés et des problèmes des Sénégalais mais pas pas de se préoccuper à des personnes nous allons faire face nous allons faire face jusqu'au bout parce que Macky Sall moomul nit ñi moomul réew mi il est temps qu'il arrête il est temps qu'il arrête d'utiliser la justice sénégalaise comme bras armé pour anéantir des journalistes pour emprisonner de façon illégale des des, des journalistes dafa doy dafa doy Macky Sall moomul réew mi dafa doy yow ak sa soxna moomu leen réew mi dangeen ngeen war a arrêté moomu leen réew mi trop c'est trop les sénégalais en ont ngeen jàpp nit ñi di dugal ci kaso bi comme kuy ay jàpp kuy kuy jàpp ay xar di dugal ci gétt pour lan la et vous pensez que nit ñi dañuy taxaw di leen seetaan ngeen jàpp nit ñi di rey ci tali bi di jàpp nit ñi di dugal ci kaso bi de façon illégale et arbitraire. Les Sénégalais en ont marre de ces pratiques-là. est c'est lâche et indigne d'un président de la République. nga waroon am yeneen yitte yeneen préoccupation saafara jafe-jafe askan wi génn ñu ci jafe-jafe yi ñu nekk génn ndaw ñi ci jafe-jafe yu ñu nekk waaye benn préoccupation nga am mooy nooy traquer ay journalistes c'est parce que ànd ànd dañoo wuute ak yow xalaat ci gis-gisu ci doxalinu réew mi nooy traquer ay politiciens parce que jàpp nga ne mën nañ laa wuutu et vous pensez loolu nit ñi dañuy taxaw di ko seetaan l'arbitraire qui règne dans ce pays doit arrêté je parle avec le cœur parce que foofu la ñu toll foofu la ñu toll Macky Sall du buur président de la république ñu fal ko mu tënku ci constitution muy sartu ndeyu réew mi mu war ko respecter war a respecter justice war a respecter citoyen sénégalais yi parce que citoyen sénégalais yi ñoo la fal bu doon yow ak yow rek mais doo doon dara ci réew mi mais ay nit ñoo la jox confiance dugal la ci réew mi fal la ci boppu réew mi mais nga jàpp nit ñi di dugal ci kaso bi jàpp nit ñi di rey jàpp nit ñi di tëj et vous pensez que nit ñi dañuy toog ngay rey seen mbokk yi di jàpp seen mbokk yi di dugal ci kaso de façon arbitraire nit ñi continuer di toog di la seetaan pour lan dama ne ça suffit ça suffit dafa doy Macky Sall moomul nit ñi sénégalais yi jóg leen ngeen fajal seen bopp li nekk di xew ci réew mi Macky Sall moomuñu jënduñu Pape Alé Niang jàpp ko ci loo xamante ni du dëgg enlever ko séquestré ko le 6 novembre adduna yëpp xam ne du dëgg lan moo tax yéen bëgg leen mu wax lu nekk ci PV bi ba ngeen ko jàppee le 6 novembre bàyyi leen ko bu leen ko bu leen ko bu leen bu leen ko galgal contrôle judiciaire boobu ngeen ko def teggi leen ko mu wax li nekk ci PV bi bu boobaa ngeen am gàcce ci réew mi bu boobaa ngeen am gàcce ci réew mi ngeen tuuti ci réew mi parce que xam ngeen ne bi ngeen koy enlever di ko séquestrer di wax ay dossier yoo xamante ne ay confidentiel ak état ay fen la teguwul ci dëgg teguwul ci yoon ngeen war a jàppaat Ousmane Sonko boo leen amee fit ngeen dem jàpp ko dugal ko ci kaso bi yoonam nekku ci c'est un journaliste qui a le droit de dire ce qu'il pense dans ce qu'il pense dans ce pays d'exprimer librement ses opinions mais dans vos putains de schémas ngeen jàpp ne boo leen ko boo leen ko jàppee moom il faut que ngeen ngeen def de telle sorte que Pape Alé Niang foog ngeen neutraliser ko pour mën a dérouler ce que vous avez envie de dérouler sur sur Ousmane Sonko li xew Sénégal mbokk yi dama dafa ëpp li xew Sénégal dafa ëpp et que yéen sénégalais yéen a war a jël seen responsabilité fajal ko seen bopp on ne continuer de vivre dans un pays boo xamante ne nit ñi dañuy appeler nit ñi koo wax mu naan la ay duma wax fii duma wax fii ah moytul lii moytu moytuwuñu dara parce que foofu lañ toll ci réew mi Macky Sall bi ñu koy fal président lañ ko fal du buur moomul réew mi moom ak ñi mu àndal lu nekk ñu ne ñu koy def ci réew mi di toroxal nit ñi di jàpp nit ñi di tëj de façon illégale ñëpp noppi réew mi ñëpp maase noppi mel ni Macky Sall kese moo nekk ci réew mi moom rek moo am kàddu ci réew mi et vous pensez que nit ñi dañuy noppi ñun suñu maam yi dañ doon bañ boo leen ko xamul tey moo wax leen ko ñun Alboury mooy suñu maam duñu baadalo duñu ay jaam ay doomu buur lañu suñu maam yi dañoo bañ ba dee ñun ci bañ lañu juddu bañ lañu xam duñu nangu kenn duñu noot démb lañ ko nangul woon tey ci suñuy maam du ñun ñu sët yi ñoo koy nangu il faut que ça arrête il faut que ça cesse Macky Sall ne peut pas être dans ce pays son ministre de l'intérieur ak ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ku ñu bëgg a jàpp toroxal la toroxal la ci réew mi nga def nga ñàkk bañ a def ku ñu bëgg a tëj tëj la ci réew mi ñëpp ànd maase ne patt ci réew mi di déglu Macky Sall muy déroulé nu mu ko neexee ci kaw ni ñi te teguwul ci loi teguwul ci règlement teguwul ci dara et vous voulez qu'on qu'on se taise vous voulez que ñun ñu noppi vous voulez ko ferme nos gueules parce que Macky Sall c'est l'unique personne boo xamante ne moom mooy def lu ko neex ci réew mi et vous pensez que c'est normal mel ni nit ñi ñoom tekkiwuñu dara ñun suñu liberté yi ñun ay doomu aan ñun duñu ay doomu aadama ñun amuñu lu ñuy yëg amuñu mbokk ci réew mi juddoowuñ ci réew mi Macky Sall ah, xar réew bi ñaar am ay sénégalais yoo xamante ne dañoo fareeg moom mu leen di protéger lu ñu wax baax na lu ñu def baax na lu ñu jël ci alalu réew mi kenn du leen topp mu am yeneen sénégalais yoo xamante ne dañoo wuute ak moom xalaat mu ne leen yéen doo leen am jàmm ci réew mi seen kër mooy keso li ma séq ak mooy di leen toroxal su booba ngoon guddeeg bëccëg et vous pensez qu'on va rester les bras croisés di xool Macky Sall muy dérouler son plan sur nous les Sénégalais il faut que ça cesse ce pays n'appartient pas à Macky Sall ce pays n'appartient pas à Antoine Diome ce pays n'appartient pas à Ismaïla Madior Fall ba ñuy jàpp nit ñi di tëj de façon arbitraire et illégale sans aucun fondement ngeen jàpp Pape Alé yéen ñi nekk ñi ñi nekk ci seen biir sax ils sont plus que conscients parce que ñoo la koy wax ne la dañ koo tooñ jaay ko doole dugal ko ci kaso bi cette fois-ci le réquisitoire du procureur vide amul benn élément de charge du live biñ ko toppee du ay propos yu mu tenir du poste bu mu def à travers ses réseaux sociaux réquisitoire bi dara nekku ci bi procureur def mais malgré tout ça pour plaire à Macky Sall des autorités de ce pays-là ont mis la pression sur le parquet et le juge pour mu dugal pa dóor pa Pape Alé Niang mandat de dépôt mais ngeen teg ko fan et les Sénégalais observent ça mais ku ñu tëj sa mbokk ci loo xamante ne du yoon bu la neexee bul wax sa problème la parce que foofu lañ toll ci réew mi ku nekk na nga lijjanti sa problème comme nit ñi nanguwuñu jóg lijjanti seen problème face à Macky Sall ku ci nekk na nga lijjanti sa problème man nag waxoon naa leen ko man du ay question wu ay mbokk ak ay loolu au-delà de tout sa man je suis quelqu'un bu nga xamante ne du ma fekkee fu ñuy toroxalee nit ci injustice lu dul dëgg du yoon faut mu il faut que lii xew ci réew mi mu dakk parce que Macky Sall mënul yor yatam di wër nit ñi di leen traqué di leen toroxal di toroxal seen njaboot yi di toroxal seen papa yi ak seen yaay yi réew mi yëpp ne pat mel na normal la acharnement bi nga xamante ne mais cet acharnement abominable sur Pape Alé mais dafa dem ba dafa ruslu dafa ruslu ci président de la république boo xamante ne yeneen préoccupation nga waroon am tey ci jafe-jafe askan wi mais benn liggéey nga am saa yoo xëy suba ba ngoon muy xëy di traquer ñi nga xamante ne jàpp nga ne dañoo waroon yow xalaat et vous pensez que nit ñi dañ leen di bàyyi ci loolu des milliers et des milliers de jeunes ngeen jël leen dugal leen ci kaso bi ci ay caaxaan ci ay caaxaan yu tegul fenn réew mi mel ni amul benn nit boo xamante ne mën naa jàkkarloo ak Macky Sall wax ko dëgg ne ko li nga nekk du yoon du dëgg du yoon dama ne la Macky Sall bu la fekkee nit ñi amuñu fitu taxaw yow ne li li nga nekk du dëgg yoon ñun dinañ taxaw ak yow pour importe luñ ci góobe gar ko ne la nekkoo ci dëgg nekkoo ci yoon lu man ti xew ci réew mi bu ngeen génnee wax balaa moo am trois quatre minutes ni ñi génne weddi leen ci état du dignité du worma il faut que ça s'arrête dafa doy acharnement bi ngeen jël jëmale ko ci gor ñi nekk ci réew mi dafa doy cette violence inouïe que vous êtes en train d'exercer sur la personne de Pape Alé Niang nga xamante ne seen projet final mooy la liquidation physique de pap Alé Niang dafa doy on en a marre parce que yow sa coobare la yow sa soxna yow moo ne Pape Alé Niang jiw leen loolu ah wax naa ko démb fii dama ci dama koy waxaat jiw leen loolu am na fu mu jaar ak yéen te ba mu fay jaar ak dafa jàppoon ne ay gore mu séq ko mu yaakaaroon ne ay gor la ko séqal ay nit yoo xamante ne am na lu ñuy jombale seen bopp ngeen fal yor nguur beew baadolo yu beew yor nguur dafa ne ku nekk mën ngeen koo toroxal ku ngeen bëgg a toroxal toroxal ko ku ngeen bëgg a dugal ci kaso dugal ko ci kaso et vous pensez que ñun dañuy continuer nii di leen bàyyi ngeen toroxal ay ba bàyyu jàmbur di toroxal ay yaayu jàmbur di toroxal ay papay jàmbur ci lu teguwul ci dëgg teguwul ci yoon mbokk yi ngeen bal ma du ma guddal information bi nga xamante ne opinion sénégalaise bi nañ ko jàpp mooy Pape Alé Niang en fin de matinée il a été évacué au niveau de l'hôpital réanimation de l'hôpital principal de Dakar il continue de résister à sa façon. Il refuse de s'alimenter. Il refuse de prendre les soins médicaux qu'il peut proposer. Parce que Japonene, Macky Sall, Antoine Diom, Ismaïla Madior Fall, dañoo nekk di ko jaay doole. ci lu teguwul ci dëgg teguwul ci yoon. loolu mooy information bi. information bi nag Pape Alé Niang moo xam day dund moo xam day dee. loolu ci yàlla la nekk. mën ngeen a am seen yéene ci moom pour mu dem bàmmeel mais retenez tout simplement que ne seeni pexe yooyu dafa am pexe bu ko féetee kaw mooy dogalu yàlla suñu boroom mooy dogalu yàlla suñu boroom Pape Alé Niang bu fekkee dafa war a wéy di continuer du dund ci réew mi seeni pexe mënul ci moom dara te li bëgg ci moom mooy mu sukk raam jébbalu comme seen journaliste yi ngeen xamante ne ñoo leen ni lavel seen ay assiette à Mermoz di leen fompal seen ay dàll ci biir pale bi ilaa yow mi diini du bokk ci ñooñu abadan du bokk ci ñooñu ngeen xam ko ngeen ñàkk ko xam abadan du bokk ci ñooñu parce que dafa am fu mu bokk ci deret te war ngeen a jël temps ngeen gëstu kan mooy Pape Alé Niang wala ñen ñooy mbokki Pape Alé Niang askan wi mu bokk kuy toppaate wala kuy daguwaate bokku ci vous avez un projet nag bien planifié pour liquider Pape Alé Niang physiquement continuer leen di ci dox seen projet boobu dogal yàlla suñu borom moo ko féete kaw Mais moom personnellement, à ce qui le concerne, mais il va continuer à lutter avec vous jusqu'au bout. lu mu am nga xamante ne loolu la ko yàlla jagleel leen yi information boobu rek laa bëggoon joxe live bi du gudd di baalu ak ñi nga xamante ne ñoo may seetaan bu baax a baax ndax jombul ne ko am na kàddu yu ma yëkkati yoo xamante ne wax dëgg yàlla am na ñum ci neexul ma koy tuub di ko jéggalu ñi may seetaan ñoo tax may wax kàddu yi keneen ku mu naqari nga nekk feneen toppatoo ma loolu sama yoon nekku ci parce que tout simplement Macky Sall ak ñi mu àndal seen doom nekkul kaso seen mbokk nekkul kaso ñu jël ay mbokk jàmbur ak ay doomu jàmbur di leen dugal ci kason de façon arbitraire moo tax xamuñu loolu lan lay def ci nit information bi mu gudd mu gàtt mooy Pape Alé Niang fi ñuy waxee mi ngi ci réanimation bu hôpital principal bu Dakar et si toutefois l'irréparable se produit vous allez avoir sa mort dans vos consciences et puis en même temps sénégal yëpp dinañ xam ne yéen yéen a ko rey seeni loxo day takk rip ak deret bu faatoo ci seen ay loxo mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di balu àq bu baax dinaa dikkaat ak yéen nag ëllëg bu neexee yàlla ci leen leeral jërë ngeen jëf.